booy maa ngi lay nuyu. sant naa la sama doom. Ah, mbir mi da nga ci am mbokk. waaw waaw dama ci am mbokk kay. Eh, kan la ci. papa Niang. ani mi ngi ci morgue bi. Ah, ndeysaan daa bokk ci ñu génn àdduna. waaw bàyyi mag sama yaay bokk ndey ak baay bàyyi mag sama yaay bokk ndey ak baay kii moog jabaram ak yaay ma doon wujje càmmiñam yaa ngi nii taxaw ñii ñoo jabaram ñoo bokk baay. ñun ñu dëkk kii nga dëkk. ñu joge ci Koupantoum ñeneen ñi ñu ngi jógee Meratu di jooy suñu càmmiñ ñàkk nañ loo xam ne dutuñu ko amati mukk ci àdduna. da doon daan dooleem rek dundee. fan la joge woon. nekk ci luuma yi jaww bi xaw luuma luuma luuma Bamba Thialène foofu demoon moog doomam bu góor foofu la doon dem moog doomam bu góor taseeg bis bi man yaa seen ndoxo nag man sama yaay ak baay ma bokk ndey ak baay sama yaay man. da ngeen a fas yéene toog fii ba koroog ngeen ciy jot. ah loolu lañ bëgg de kii moom fii ak mi ngi tëdd fii mënuñu fee jógee mu ko jotuñu ci danañ jooy rek ba fu ñu ko jotee dem suñu ko jotee tëdd nelaw ci karo yi rek ba heure bu ñu fi jotee. fan ngeen ko fas yéene denc. mbuur bu soobee yàlla. incha allah jërëjëf yaay booy ñu ngi leen di masaw yaay booy mu mel ne métti du ñëpp ko bokk. ñëpp ko waaw ñii de ay doomi baayam lañ. waaw ñii nga ñee ne ñëpp ma ànd ak ay doomi baayam lañ sama doom jëy sëy ci kër Daawut kooka it eh, ab baayam la ba suba ba tey ñu ngi jooy ak a yuuxu këppantum lañ joge ñëw wàcc si fii fee bañ fa jaaree fekk asi oto bi oto yi daanu farañ këpp ñun ñëpp ñu ngi yuuxu suba ba tey dañoo bëgg nag niñ ko génnee yóbbu ko waaw loolu rek lañ bëgg mbokk moom fu mu nekk mbokkam rek a fa ne jërë ngeen jëf yéen itam am ngeen jërëjëf. aywa maa fi euh, grand. mu mel ni dégg naa sa doom baay da cee bokk. sama sama mag bu baax la kay mu nga dëgg xam naa daan dooleem rek wax dëgg fa yàlla xam naa daroon dàkk si luuma ji luumay bamba daal la doon dàkk si war yàlla dugal lii rek waaye nag métti na waaye nañ ko sante yàlla suñ borom yàlla yàlla ko fi indi woon yóbbu na ko nañ ko sante yàlla ah jarbaat bi itam yàlla na ko yàlla may wér mu muuri may mu nekk ci biir suñ suñu jarbaat la moom itam am na moo doomam ñoo àndoon waaw nga baal ma àq jërëjëf Doudou mi ngi noonu. kenn mënut jot sa koor suñ demee ba ne président Macky Sall ñëw na fii ci hôpital Kaffrine yaakaar naa ne yëf yi war naa mën a yomb waaye yëf yi dafa gën a jafe da nga yóbbu sa kayit fële ci bi pour jot sa koor. te copier nga dang dangi dem balaa ngay retourner balaa ngay ñëw fekkaat lu bëri taxaw ci buntu bi pour nga lijjanti ko sax problème la waaye comme dem nañ ba ne président ñëw yëf yi war naa yomb ci ñin mbir mi tamit ci wàllu administration ay kayit la laaj rek ndànk-ndànk baax na ci. waaw ay kayit la laaj ku ne xam na ko waaye kayit yi suñ ne kayit la laaj kilifa ak réew mi su ñëwee war naa mën a wax ñi yor kayit yi ñu yombalal jaam yàlla yi kayit yi kayit yi yomb ci nit ñi ñu jot koor ñi dem kenn ku ci nekk yaa xam fa nga jëm nga yóbbu fa say koor ñin ñeenti koor lañ fi am depuis 6 heures du matin ba ñu ngi fi may ni benn koor koor yi kan ak kan la. Ousmane Ndiaye la ah, ak Samba ak Jibi Ndiaye ak Bàcc njaay ñoom bokk. ñaar ñi ñoo bokk benn baay yeneen ñi ci des ay doomi ndey lañ ñoo bokk benn oto bu ñu leen liggéeye ñoom ñeent ñëp yàlla moom na leen. ñoo oto bi ñoom ñoo yoroon oto bi. chauffeur bi ci la bokk. chauffeur bi ci la bokk ak benn apprenti boo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk benn baay ak yeneen ñaar ñoo xam ne ñoom it ñoo bokk benn dëkk buñ dëkk doon ay doomi ndey. chauffeur bi nu mu tudd. chauffeur bi Samba Ndiaye la tudd. moom fan la bàyyi ko woon. moom mu ngi bàyyi woon dakaar Wélingara euh, jëm Dakar. Ah, moom la ñu wax ni moom la pneu am toj. waaw moom la pneu am toj mu dajeeg beneen oto bi waaye sonn nañ foo ko àpp rek passé na ko nañu dimbali li laay war a suuli ñu mën jot si ñuy koor loolu rek mooy suñ problème. kon daal oto boobu chauffeur beeg emprunté yi ñëpp gaañu nañ faatu nañ. ak yi ci bokk yëpp ñi masawu nag képp koo xam ne nii neen ci oto bi nga bokk ak kuy sa mbokk ci oto beeg lépp daal ñu ngi masawu ñëpp waaye foo ko àpp méttiwaay bi rek passé na ko waaw ñu la leen si jàmmal salaam. ban dëkk ñom ñi ngi dëkk Kaolack waye Touba lañ leen wara denc. jërëjëf ku baax ma ngi lay nuyu. ñu lay fay ñu lay fay. tour bi. Amadou Wuri. yow yaay emprunter benen bis bi. waaw ah, buy dem jaw bi. Ah, lo ñu mëna wax ci mbir mi. ah señ mbir mi mom auto bu mu kafri mom moom dama wacce bagage kafri mo dem ci ginnaaw ma xam tok ci photo digg bi bu ma tok ci photo digg digënde bobu bu ma gëssu di connecté wu jëk jëk xamatu xamatu xamatuma dara auto da jëk jëk rek ñu bëkkante oto bi bëkkante ma ma fexe ba génn di xool sama sama sama booy war naa dem ba sonn suñu la tiim ñaari ñu gaañu ak suñu benn apprenti bi si la woo sama bi si la mu ngi nii si la ñëw chauffeur boobu. ñoom fan fan fan am ay gaañu gaañu. ñeneen booy bopp bi keneen tànk bi dafa dagg benn booy bi épaule bi la. benn booy bi. épaule bi épaule bi waaw man ma ñoo bokk fi ñu lii man dama épaule bi mooy métti quoi. Mm-hmm. loolu sant yàlla rek léegi. yow soog bi muy am daa fekk nga ne ci ginnaaw oto bi. waaw ci biir oto bi ci potu digg bi. Mm-hmm. foofu laa toogoon quoi mm-hmm. waaw. mais ñaar chauffeur dañoo ak benn apprenti bi ñu ngi fii d'abord gënaguñu waaw. soog bi lan moo koy indi. lay fay sëñ bi. léegi euh, loo ñu mën a wax ci mbir mi vraiment daa mel say mbokk ci accident bi lan bokk. Birmidal, comme ñep dañ koy ñaawlu parce que d'une part dañuy né ndogalu yalla la mais d'autre part dañuy euh, président de la république monsieur Macky Sall mu jël ay mu jël ay mesures ci mbir parce que frère Moussa c'est un gars très engagé un activiste il a tout fait pour Vélingara surtout combat circulation bi mooy accident accident de la route day xex ci loolu tay mu muccu ci mu mujjé ci mu mujjé dé ci loolu non donc ñun dañ koy dañ koy ñawlu parce que tay c'est une possibilité ñun buñ doon ñëw ñu ngi doon xol yoon bi yoon bi dafa xat tali bi dafa xat tali bi yaatuwul té tali bi ay camion ñoo fay jaar da ngay gis ñaari camion difa romb c'est pour man dañ ko wara dañ ko wara a quoi parce que tali bu tollu ni forcément accident dina fa am te nguur gi mën na ci jël ay matuwaay ñun ñu ngi ñaan président la république dañ koy ñaan mu def ko mu jéem a éradiquer accident yii nii ci yoon bi parce que mun na mun na tombe ci ñëpp des jeunes ñi nga xamante ne amuñu sax amuñu demaguñu fenn sax ñu dee un enfant de trois mois dee na fi un enfant de de trois ans dee na fi bàyyi bàyyi yaayam xam nga yooyu noonu mun nañ mun na mun na mun na ñàkk quoi mun na ñàkk ñu ngi ñaan nag président la république mu taxaw si.

déjà moom nit yi publier woon nañu ni que dee na mais dama ne damay dugg def tu dugg ba ci biir fexe gis ko woon waa Vélingara ni que deewul muy dund ma fexe ba def loolu wane deewul yàlla jàppale ko ci loolu ak wuri mi nekk ci ginnaaw ñooñu noonu six lañu ñoom ñëpp yàlla jën la leen ñàkk nañ seen bakkan léegi nag mu doon lu métti tey Vélingara am na lu ko métti ñun bu ñu ñëwee fii lu ñu gis sëñ bi mësuñu ko gis man bi ma juddoo ba tey mosuma gis li ma gis tay mort yi bëri nañu blessé yi bëri nañu li ma gis mom mosu ko gis franchement mënoon na ñàkk. mu mel sa waaw lii la franchement def nako ko de def nako jox nañ ko résultat donc tay traitement la wara top ba mu gën tané parce que ku def accident mënoo ko ne wér nga wala tané nga parce que ci biir mën na am ay fracture donc lolu dañuy remer dañuy remercier ñi fi ñëw yépp ñu jot a déplacé wu ñu déplacé wul ñi woote ñi taxaw ci affaire bi yëpp ñu remercier leen remercier euh, Croix Rouge ñi nga xamante ne. mu mel ni rek ni ma la taxaw ni gisee nga taxaw ci buntu Margo bi euh, da ngaa fas yéene yóbbu ab koor yóbbaale ko. effectivement dañuy yóbbu koor bon damay yóbbu six personnes. six personnes yëpp xaj nañ ci bi six koor yëpp. waaw parce que district sanitaire bu Vélingara jox nañ ñu ambulance dañ ciy dugal ñaar. ak suñu oto bi 4 x bi ñu dugal ci ñaar yeneen nii am na beneen oto bi nga xamante ne ñu ngi koy xaar mu ñëw ñu dugal leen ñëw foofu noonu ñu yóbbu deux deux par voiture loolu lañ bëgg a def vraiment merci ko yaa ngi gis fii ci ginnaaw nii mooy margo bi bi seen mbooloo mi ci margo bi nii duudu mbooloo maa ngi noonu ci margo bi kenn ku nekk di xaar sa koor ngir jot ci mu doon xibaar bu tiis bu metti fu la way bàyyi ko ñëw ngir mëna jot seen koor yi mën leena yobbu way aduna ni la àdduna dund ak dee and te yalla de sax lañu ko bind ko ko dund way ñu ngi ñaan ñi tëdd fi yalla suñu borom yeesal seen njëgal seen coono aduna yëpp yalla yam ci bis bi ñu fi ci bis bis bi nga xamanteni rek gën nañ ko aduna ko ci dekk mi ko rek buy wax da nga and xol bu noy xool bu fees bu tiis bu tiis ngay àndal waaw doo xam lu dul rek papa ñu bàyyi la nga waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di métti lu ci xew-xew bi xam naa moo leen tax a ñëpp métti na Sénégal yëpp métti na mboolem koo xam na doom aadama nga bu xibaar bi yegsee ci yow am na nag gannaaw métti bi ak gannaaw naqar bi. amna luma gis ci liggéey bi lo xamne mom lay jital doo ko wax tay ci tay ni président Macky Sall joge Dakar ñëw ba fi mbollem kilifa yeb joge fañ dëkk ñëw ba fi vraiment don na gëna rafet gëna jek gëna yombal liggéey bi ñi nga xamne ño yor dossier kay yi nga xamne ñoy gëna new yi ñu mënon installé wu fi ci hôpital bi kenn ku ci nekk li ngay lijjanti ñu wala damal ci bureau diw kenn ku ne installé wu fi mo xam gouverneur lay doon mo xam préfet lay doon mo xam gendarmerie lay doon ak koo xam ne rek am nga accès ci affaire yi waroon nga ñëw tey fii nga installé wu fii su ko defee li nit ñi lijjanti mu yomb parce que am na si ñoo xam ne sonn nañ lool lool lool ci lijjanti seen kayit am sa naqar am sa toono am sa sonnaat ci ay lijjanti ay kayit vraiment waroon nañ ci man a ay jàppandal. da ngaa bëggoon ne président dafa dem rek ñoom ñëpp itam ñu daal dem des kenn fi. dañoo sonn man am naa ñoo xam ne ñu ngi dëkk jaw bi may ànd ak ñoom di leen dimbale seen i kayit dem nañ retour lu mat sept fois yoo xam ne bu ñëwee ñu ne lii manqué na lii manqué na vraiment euh, loolu loolu ñaanuñu ko yàlla ñaanuñu ko yàlla bu mu amati yàlla bu mu amati ci kaw suuf waaye doon na gën a yombal nag tey mboolem koo xam ne li ma la wax euh, euh, am nga agsi ci affaire yi nga ñëw fii ñu jox la saal boo xam ne da nga fay toog di recevoir nit ñi di leen dimbale seen i kayit mu gaaw parce que tey am na ñu sonn lool ci loolu. gannaaw loolu nag euh, vraiment ñu ngi sant adduna yëpp ndax kenn koo gis doomu aadama la. donc ñun ñi di dund ak ña dee ñoo bokk yem mais dana neex nag comme li ma wax euh, tiis dal sa kaw nit ñëpp xam na tiis dal na sa kaw sa kilifa ci réew mi di président dagg ay itteeb ñëw fekk si la mboolem koo xam ne nii comme ak si ci réew mi la moom it dagg ay itteeb ñëw fekk loolu dana tax tiis bi sedd boo gisee dee kenn mënu ko fomm waaye jaale mooy oyofal ko ci xol bi de saa ki dee la tey yow boo ñëwee ñaanal ko kii ñëw ñaanal ko kële ñëw ñaanal ko su boobaa vraiment dana tax mu wàcc ci moom. yow sa mbokk mi ci génn àdduna nu mu tudd. sama mbokk mi génn aduna eh, Joor la tudd Njaay la sant Kaolack la dëkk Jawbe la doon liggéeye waaw jaaykatu jën la woon da doon dem bu di jël jën bu tooy di ko yóbbu Jawbe ci ndogalu yàlla nag ci la aj aju tey ba yëfi dal ci kawam voilà. papa ñu jaajëfal la papa maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay. ajo mu mel ni rek eh, da ngeen a tiim seen koor ni waaw kii de moom sama rakk bu jigéen. mom moy borom kërëm big dal ci ay bi mu réré la déparé Mbour julina ge wasifana wasifa na ñew rër kërëm and ak domam bu goor domam baangi fi ci hôpital bi entré mi ngi mi ngi urgence ñu dal ci fajar bi lañu ñu rek ñu amna sok bu am yoonu Tamba lool dal lañ ci jot ki nak mom mom nopaliku na dom bi mi ngi fi sonna na lool momi dom mom num tuddu moom moo du Mohamed Niang. léegi kii kii góor la. nu mu tudd kii góor la Papa Niang maam ñu di wax ñu e, Ibrahima Niang. Ibrahima Niang moom la tudd. Euh, fan la dëkk. mi ngi dëkk mbuur euh, doon jëm Tamba. waaw doon jëm Tamba da daan jënd ay bagage baana baana même yoroon na xaalis rek yooyu yëpp yoron na ko. parce que bi xanaa horaire la. biis la waaw biis la. waaw metti na loolu wax dëgg yàlla mais nag loolu yëpp dogalu yàlla la rek yàlla moom li mu dogal jàmm nu ci dara dañ koy bàyyi la yàlla bu suñ borom mi ñu ko teg rek waaw salaam. ku baax maa ngi lay waa waaw fay naa la ko. mu rek yéen a tiim seen koor ni waaw ñun ñoo tiim suñu koor bi nijaay la si man waaw affaire bi moom metti na lool metti na métti na fa kanam yàlla waaye di leen ñaanal rek euh, yàlla xare leen àjjana suuf suuf set seen oyof seen kaw waaw métti na lool daal. amoon nay soxna. a ah? ñaata soxna la amoon ak ñaata bant la amoon. waaw amoon na benn soxna. ak juróom benn bant. ak bu jigéen ak bu jigéen. muy naan naa mu ñëw juróom ñaar. parce que xale yu ndaw daal waaw. gannaaw ba jot ngeen ci fan lañ ko fas yéene denc. waaw mbuur lañ fas yéene yóbbu ko incha waaw. lu ni mel bu amee ci réew mi Sénégal gépp tey kenn amul jàmm euh, ban message nga mën a lancer ngir ëllëg donte mënul ñàkkit muy gëj. waaw message bi may lancé mooy Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk waaw kenn ku am ay rek dina laal keneen kenn ku am bànneex dina laal keneen gi kon yoon wi daal maanaam daal lu ma ko si mën a waxee daal mooy yoon wi xatut xëy na xol yi ñoo xat bu ñu doon def ndànk rek kon lii lépp du am parce que daanaa dégg si benn anecdote benn waaye benn chauffeur demoon si sëñ Fall naa ko ñaanal ma bu ma accidenté sëñ Fall na ko daw ndànk dal ndànk kon daal fuñ bu ñu ko fekkoon dañ doon daw ndànk kon manam dal li lepp du si am oto nag pneu bu togn ken kenn mënu koo kenn mënu koo fa fagarlu ken mënu ko maîtriser lo ay ay ay ay mënoo koo maîtriser mais su fekkone tay poids bi oto bi yab na poids bi normal bi mo wara yab kon amana kon li yëpp du demee mais bus yi léegi boko sello dañuy yaba yaba yab yab à hauteur de 2 mètres ba pare ñu defaat ay porte bagage yo xamné ci ginaaw lay nek to lolu jaadawul to lolu jaadawul bus bo xamné ni normalement warul jël 70 places ñu dem yokko ba mu nekk ay 70 places ay Versailles ak ni mu xataay bi ni mu demee loolu métti na trop trop trop.